jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di kontaan ci yéen ci jox bopp bi ngeen jox bopp tey nag mbokk yi maa ngi fii bii wasaare nekk ci émission bi mag bi nga xamante ni mooy jàmmaarloo su ma nee jàmmaarloo nag yi dem ci mbër yi waaye su ma nee jàmmaarloo xel yi dem ci supporters yi waaye mbokk yi tey dama fee dalal ñaar ñoo xamante ne nii fa ñu nekk yaakaar lañ fa te ay ndaanaan lañ ca wàll wañ nekk ndax euh, maa ngi fi dalal ñoo xamante ni bu ñu jógee kii bu jógee waa géej waa kii bu jógee waa paasal jóg ndax sama droite maa ngi fi am ki nga xamante ni nii mooy Thiatou su ma nee Thiatou Walo nag nekk Ikri Walo nekk ndaanaan boo xamante ni nii képp kuy bëri moom ku ne ah, di nga xam ne am nga komba te di nga ko waajal bu baax a baax sama góos maa ngi fi am ki nga xamante mooy aada booy bawal su ma nee aada booy bawal nag xel day dem ci parcelle su ma nee aada booy bawal xel yi dem ci Cambérène waa su ma nee aada booy bawal xel day dem ci mboor mboor yi ba tax na tey nag ñoom ñaar laa fi boole bëgg ñu waxtaanee làmb bëgg ñu waxtaanee seen carrière ndax ñoom ñaar mbokk yi ku ci nekk ci combat bi nga mujjee jóge danga nga cee am ndam waaye boobaak léegi seeni combat biñ bi ñu bëree léegi xaw na yàgg boobaak léegi kenn gisaatu la ñu bëree xaw ma gars yi dañ leen ragal xaw ma xaw ma daal man naka la demee noonu moo tax nag tey ma dal leen fi bëgg waxtaan ak ñoom ci combat yu ñu a jóge ak ca lu ñu jëm te ñoom ñaar ñi sax defe naa ni combat bu neex a neex a a neex la ndax euh, ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk sa tête de defe naa ñuy bëri kii moo ngi nekk Waalo Alioune Seye 2 moo fa nekk kii moo ngi nekk équipe Dóor Dóoraat te Zos fa nekk te defe naa ne alin Seye 2 ak Zos combat bu neex a neex la te ñoom ñaar tamit bu leen ci boolee defe naa ne du ko yàq xanaa ma bàyyi leen ñu nuyoo ñu wéyal waxtaan wi caatuwaalu nuyu naa la. maa ngi lay fay maa ngi lay fay bu baax a baax ne daal onze billah bismillah inna wala yàlla jërëjëf borom Tuubaa jërëjëf borom Tuubaa maa ngi jaale suñu père bu génn àdduna bu baax a baax di ko ñaan yàlla na suuf oyof si kawam. te déedéet na fulaayam di ko jaale Balla Gaye numéro di ko jaale Sa di ko jaale suñu grand frère Lirou Diagne. di ko jaale waa Géejawaay gépp ak waa lu Làmb gépp. di nuyu sama yaay ma sa kër ga di ñaan yàlla guddal fanam ba mu fekk njëriñ njaboot gépp si barke yonti wi. di nuyu maître dan la grand avocat mu maître Dialy Kane nga xam ne lépp moo ñu ko jël en charge. ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuy sama waa koñ di gërëm ñëpp di siyaar ñëpp. di siyaar ñëpp. Ada naa la. waaw maa lay fay Ouzin di la siyaar di la nuyuwaat baax nuyu caméraman nuyu Fallou ma àndal nuyuwaat Thiatou Walo di wax ne tamit xam nga suñu papa du Less daf fi jóge ak suñu papa Mbaye Guèye ñu ngi leen ñaanal yàlla yërëm leen xaaral àjjana ak mboolem jullit mu fi jóge fi fi ñu jëm yàlla leen gënal fi ñu jóge di nuyu waa parcelle yëpp nag ak waa Cambérène xam nga di nuyu ñi may jàppale ñëpp aw ma seen fay di leen sant di leen gërëm di leen nuyu baax di wax ne jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba. Mhm. Euh, di nuyu ñëpp mais Ada Boy Baol dañ la gëj a gis ñu laa gis nga bëre. Mhm. mais dañ la gëj a gis lutte avec dafa mel ni bi nga bëre sa combat yaag. Euh, Zal Bambay. Zal Bambay. Mhm. boobaak léegi léegi mu def def na deux ans. Mhm. def na deux ans boobaak mhm. léegi kenn gisu la waaye teewul yaa ngi bay sa waa ci lutte simple. ndax euh, chaque chaque chaque lutte simple dinañ la gis nga génn def sorti dinañ la gis di nga ci sooy toog di nga ci def la nga xamante ni nii moom nga ci mën. mais lan moo tax ñu gëj la gis lutte avec frappe. waaw amaana xëy na si mbëri la rek parce que man moom ñu mooy wax combat mais amaana. yàlla day dogal xëy na combat warul taxaw ak mbas bi fi duggoon ñuy ñaan yàlla mu jóge fi. Hmm. amaana ñun ñëpp loolu moo ñu tardeel ndax corona bi moo demee noonu ñuy ñëw ñuy tëj ak a tëji tëj ak a xam ma doo sax xam mais gëm naa ne daal bu jotee rek dina ñëw quoi man maa ngi entraîné maa ngi toog di xaar pour bëri ndax lamb rek mooy sama métier. Hmm. loolu moo fi bàyyi bu jotee rek xëy na dina yomb. gis nga bu jotee dina yomb caatuwaalo yow tamit li daal aada moo la daal yow bi nga bëgg euh, ñagas ba léegi daan ko ak manière boobaa ak léegi kenn gisu la kenn déggu la waaye teewul yow tamit yaa ngi wàcc ci lutte simple bi di ci bay sa bu baax a baax. waaw ñoo ngi wàcc comme aada booy bool waroon naa ko maa ngi koy nuyu sama passage ci lutte simple bi sax di si compétir waaye gars yi boo commencé dugg lutte simple rek pour nga am combat arène day difficulté bu métti sax. Mm-hmm. te gars yi dañuy yaakaar ne da ngaa nekk ci ay xar bu fuufa ay te fekk na da ngaa entraîné ba gëm sa bopp. di dem temps de chance pour sa wërsëg. gars loolu la ñuy jaawale boo bëree lig simple koo nar a jël na ah diw su fekk ne demeewul noonu góor bu ne ko entraîné six mois neuf mois caaxaan noo defoo dara war nga am jom dem bëri ci simple amoo combat arène te ñun làmb luñ choisir mbër asu jàng métier day weesu su mbër. Mhm. damaa bëgg gars yi bàyyi xel leen bu nga gisee mbëri ndaw yi di kaas ñoom Balla Gaye seen début keroog ñoom Bathie Seras ba ñuy bëre benn saison benn mbër da ci bëre quatre combats boobu ay deux mille cent am. fu mu ne nii huit mille sept cent licence moo am kon nga xam ne ko làmb ji dafa met dafa saturé dañoo war a bàyyi gestu ñu suuf ñu suuf dañoo war a gestu bu baax a baax a baax gestu bu suuf boo ko déggee mooy lu mbër mu ndaw di mobilisé léegi mbër mu mobilisé wu ko mm-hmm. kon boo gisee mbëri ndaw yi di kaas la rek du leneen cadre boobu la ñuy kaas mooy ñu xam ak mbër mu ndaw di ko jox gëddëm di ko jox lépp ñun mbër mu ndaw yi bu duggee stade sax mbër mu mag fu ko neex lay teg ci mu gaa mbër mu ndaw nañ koy kajjal fekk ay biti la par force fu la ngay dajale na ci benn ruq te stade arène nationale war na am harmonie bu dàq boobu làmb mbëri dox daje loolu amatu ci làmb am nga ni ñaari mbëri dox rek ko ne kontante luy dundal làmb waaye jël ñëpp kaase ñu te làmb dafa am film dox daje. foofu sax ma foo naw foo yegg si mais arène bi dama gis nu ko defaree man man ci sama gis-gis dañoo waroon laaj ñun naka la ñuy dundee mais woo ñu xool ñoom nañ ko bëggee ñu defee ko noonu parce que boo gisee cumukaay ni ñu koy tegelantoo du yoon parce que am na ñoo xamante ni da ngay gis ñu may la benn 1 mètre may ki benn 1 mètre may ki benn 1 mètre doo mun a dongali doo parce que charme làmb dafa bokk ci nga sottee ko butéel supporter gis nga daw la nga daan am ci làmb gisutuñ ko ci làmb. maanaam cumbukaay ñu ko pro stade bi ñu ko programmé baax na de ndax am na ay canal ci ginnaaw lii bi maanaam imaginer mbër mu tuus ba pare nga jël si ginnaaw kenn ku lay sotti gàlla yoo ñaar taxaw doo baar nit ñi seetaan maam làmb ji balaa doon gën a mu xool sa côté bi nii ku ñuy teg ñuy teg nii ñuy dox di xam nga loolu day génn arme sar mu làmb waaye yow imagine nga bëgg a bëggee sa adversaire digg géew bi la si digg géew bi ngay fekk sa adversaire ngeen di doog a daje. du ngeen daje benn yoon foo leen di daje bu ndoxee giriyaas nii fatt la fatt ko moom mu mel ni ñun làmb reyante la te sport la. Hmm. sport ñaari mbëri ñooy jëflante keneen ku si dugg rek. yaa yaa ci dugg waaw yaa ci bëgg mënoo sama contrat li rek bu ma war a jëflanteeg nit ke ku kuy ak moom lu wax baax na maa ngi moom la. moo looloo ma concerné na gars yi geesu làmb bu baax baax yaakaar dañ see bari. Mhm. yaakaar dañ see bari de dëkk bi ay soixante quinze kilos fii mars gisoo ko fi deux cent kilos cent cinquante kilos bu mars. waaw loolu na nit ñi bàyyi xel. yàlla yàlla ñun làmb dañuy wax may wax benn wax bu am solo nii pour ñu bàyyi xel. Mhm. ñëpp jox na leen aide. ñëpp jox na leen aide ñun làmb kenn dimbali ñu wul ñu benn nit aide mën naa jël. seede nii aaraba ba du ma bàyyi ma fenn. deux yi yëpp corona bi am ñoo daje Tiwaan Pël. Ah su ma fenee ne ma fen naa deux ans yi. boo ñu fekkee Tiwaan Pël da ngay yaakaar dañoo am combat làmb lan yaakaar am nañu ay métier nag waaye suñu yaayee sonn kërti kërti bay bëgg a dee ñu teg ci suñu bët yi kon nag dañoo war a reen. mën koo faj te leen koo faj. xamul lu gën a du ma yenn suñu kër. boo mu fekkee si kaw télé bi nga may fekk ma mel ni du estati. rus naa toog suñu kër di toog. jigéen di jàmbat jumbo wala dara wala diwlin cent franc yoruma ko sama ngor ma mayuma loolu te damay jóge entraînement war a récupérer du ma mën a récupérer si biir kër gi ndax ruus naa ñuy jàmbat te bu ñu toogee nga ñàkk ko dem sa yoon damay obligé dem ci tëli ba toog si cott duudaan ba xam naa ne di leen kii moom te fekk na sama ngor moo ma mayul may toog si biir kër gi nit ñi jàmbat si li ñu war a lekk te joxuma ko làmb moo metti dañ ñu geesu ñoo war a geesu bu baax a baax gis ngeen kàddu yi am na solo bu baax a baax mais aada su ma ñëwee ci yow dama gis sa combat bi nga mujjee ba ka nga ba peut-être moo la jiitu ci làmb wala boog mu la ay combat mais keroog ñu gis nga ñëw bëree ko ak manière ñëpp nag ñu ci bari joxoon nañu Zal Bambey favori mais bi ñu ñëwee gis nañ la nga bëree ko ak manière ba génn ci daan ko jël boo xamante ni bett na ko lool combat bi naka la demee woon. damay wax ni ku jox favori xanaa nag maa xamul rek wala mosoo maa seetaan. Mhm. na xam naa ne moo ma jëkk a bëre nangul naa ko. moo mag mais xam naa ne ñi ma daan daanu leen. sans ci bëre arène kese tamit nag quoi amaana arène bëre naa ak ñu ma bëreewul mais ñu ma bëreel ci simple la bëreewul ak ñoom parce que man yàlla moo def ni damaa juddu rek xëy na nekk mbër boo xam teel a bëgg lambu séeréer balaa balaa ñu ko suloo ñaata combat nga jotee def. am naa huit combat. ñaata victoire am naa ci sept victoire. sept victoire. Mhm. benn défaite nga am. oui ku la daan. kii moom Issa la fu ma astafurlah am naa deux défaites. dama jum waaw. Mhm. waaw am naa deux défaites parce que man yaakaar naa ni lamb moom day sama métier comme ni ko caatuwaale waa nga stade arène nationale bi. dañoo juum xamul tax. Mhm. tey far force cumukaay ñi lay jàkkaarloo te pourtant mbër dafa baaxoo ñu ñëw ñun la bootal penku wala bootal jant bi. Mhm. mais tey bu ñu nee la bootal doo boot. même buñ nee la tegtal bi ni lay demee far force fi nga wax ngay teg fi ngay teg. ba pare yow yow yow mbër ñi nga àndal dañ leen a tëj duñ génn. benn lan lay may ñaar wala des fois sax sa benn nit force génn policier yi jàpp génn stade wala ñu dit ko nee mu toog ñun tamit làmb lañ yaakaar te ay mbër lañ de barke alxuraane kër yi mbëri ñu naan ñooy mag yi fii bu ñu taxoon fii ñu contact day metti amul kii amul kële man boog man sama côté laay waxee lijjanti wu ma mbëru mag ak mbër bu ndaw bëre rek amul lu ma ciy it yàlla moo def loolu si man ndax làmb dafa ma jaral kon ñun nan nu jàppale làmb ji ni mu def nii ñun mënuñu fexe ba bëre aada booy bool toog deux ans bëréwul loolu nan la mën a nekkee te man mooy génne lu ëpp quinze car loolu nan la mën a nekk di mobiliser di def lépp xoolal samay grand combat yi ma mujj a bëri damay du stade Iba Mar du ma ñëw ñu naan ana kii lu mu andi loolu du am mais dañu war a jàppal mais xam nga lan war a bàyyi tànn sa yaama neex ji mbër da gis mbër boo xamante ne wallaahi gars yi xam nañ ne benn promoteur jël ko amaana am na benn mbokk bu ko jëndal ñetti bolog wala ñaari bolog rek ñu jox ko combat mais tamit ay mbër daf am nañ jàppale mbër yi ñu dem su mënul jàppale nag ah yàlla baax na yàlla moom waxul kenn dara quoi ndax am am yàllaay buur ñàkk yàllaay buur quoi. mais sa bi su ma ñëwee ci sa combat bi. Euh, naka nga ko bëree parce que euh, keroog euh, ñu bari ñu bari titaloon nañ la. mais bi ngeen simmee ko ba jàppante euh, ñu si bàyyi gis nañ ne lañ ci doon yaakaar wala lañ ci foogoon gisuñu ko. non amul amaana combat boobu noonu man. Mhm. boo jógee Gambie rek war naa am cent quinze kilos wala cent dix barke alxuraani karim. waaw mais xam nga lu dama ñëw di compétir xam nga man comme man damay compétir jeex dafa may yomb. Mhm. parce que man mbëru mbapat moo mel noonu souvent mënoo gis état bu bari. Mhm. parce que ñun chaque samedi dañuy bëri chaque dimanche dañuy bëri damay jógee fii samedi bëri dimanche ma dem Dakar wala làmb samedi jeex fii Dakar mu kon ne àll ba. am naa oto bu may yóbbu xam nga loolu bu yàggee tamit nit ki da ngay tooy da ngay tas parce que damay takk ngeen mu bëri mais leer na ma ne man man maa ëpp doole mais nag comme lu jàll la garaawul quoi. naka nga bëree ak moom. dama bëree ak moom rek pour wan ne ko tey waruma daanu mooy sama deuxième grand combat dama war a confirmer pour dem parce que soo daanee benn grand combat daana la beneen day mel ni mën nga wàccaat sax bëree bul xam looy bëreewaat mais instant au moins damay góorgóorlu pour daan ko su ma bëriwaatul grand combat ma bëri spécial bu baax. loolu rek woon mën nga ma ñëwaatal ci combat bi. waaw combat bi dañ bëre ma songale ko bi ma koy songale songale baaxul. mu kebale tànk yi xam ma yëkkatiwaat ko mu jóg. ma kal ko si ginnaaw ñu dem ma kalaat ko ñu dem mu daanuwul léegi nag man ni ma ko doon kale moom noonu la ma doon jéem a def man tamit ma rocceeku bàyyi ko mu surux parce que man maa ko sut relance li ma ko doon def bu fekkoon moo ma sut. war na ma cee mën a daan mais moom da def te man maa ko sut man ma rocceeku bàyyi ko mu ñëw tëdd. mais nga jóge ci loolu mu nekk combat boo xamante ni victoire boo xamante ni mënoon na la yóbbu fu soree sori sori ci làmb. Mm. mais booba ak léegi gisuñu la. wala boog gars yi ñu lay proposé nga bëggul wala nu mu demee noonu. man nag yàlla dogal na euh, pour combat yaa xoo ci man sax yombul nag. parce que ma nekk caatuwaala wax na ko sànq mu ñun mbëru mbapat dañoo am problème. Mm-hmm. dañoo am problème mu bëri man sama gars yi chaque jour dañu naan wàññil mbapat bi wàññil mbapat mais man foog ma bëre foog ma wut xaalis wala mu wut nag man mënu ma dëkkee ñaan. munu ma dëkk tamit tey nit ku nekk nga ne ko lii laa soxla lii laa soxla il faut tamit ngay wut pour loo am dencal sa bopp parce que àdduna yaakaar naa li lay doy yow rek yaa ko mën a liggéeyal sa bopp mais doo du doomu aadama moo ko yëkkat jox la ko li la war a doy sa dund. loolu fooguma ko man du ma ni amul nag mais yombul si àdduna bi kon nit ki li nga war a am yaa koy liggéeyal sa bopp ñu ngi may wax ay combat mais combat yi ñu may wax yàlla day dogal dañ may wax combat ma ni pare naa du ma déggaat promoteur wala sama manager du ma woowaat nii waaw. kon daal combat du yàqoo ci yow. no bëriwul de combat ñëw yaa ko ah xanaa nga waxoo mbër boo xamante ni xaw ma ko parce que parce que Abdoulaye Khan Ndiaye daf ma fi doon wutal combat mais des fois dafa may wax mbër yoo xamante ni wax dëgg fa yàlla barke alxuraani karim musuma leen a seetaan wala bàyyiwuma leen xel. ak ah, li nekk ci làmb yi. ma ne ko nag man soo may suñ may jox nañ ma jox sama morom boo xamante ne nii làmb xam na ko bu ko làmb xamul sax trop trop au moins man su ma xamee xam ku mujj a bëreel mu jaral ma bëre mais du fekk koo xamante ne nag da nga ma diw fii la dëkk rek pourtant bëre na Ah, ma ñëw jël ko loolu tamit wóorul quoi. mais kii xam nga ko. bu baax. bien sûr ak ma koo xam. Ah. xam naa ko ci làmb bu baax kay. waaw ah, baax tegal foofu solo xam nga ñëw. caat su ma jugee ci aada booy bawal yow tamit ma gis nga jël ñagas. ñagas nekk ci ay tolof tolof nekku avant tolof tolof sax ñagas nekk ci dynamite bu baax di doo nit ñi ñuy daanu muy bëre di daan teg la deux défaites xaw ma benn défaite nga jël ko. bi nga koy jël euh, ñu bari tamit moom lañ joxoon favori ndax moo la jiitu ci làmb combat bi def defoo ko ñi mu bëreel euh, ñoo la ëpp tour ñoo la ëpp dayo ci làmb nga ñëw jël ko keroog bi nga koy ñëwee jël duy stade ba mu fees waa géej waaye ànd ak yow nga ñëw ànd ambiance andi état simmeeku taxaw jàkkaarloog moom ñëpp nag nee nañu woon combat rapproché bi moo la gënaloon mais ngay dam yi ak moom di dam yi ak moom la moo la loon ci ñagas avant tout. lu may wax rek ñun yàlla daa dogal dañoo ñun dañoo teel a bëre. yaa ngi ci ñaata combat. man maa ngi ci neuf combat. ñaata victoire. maa ngi ci sept victoire. sept victoire deux défaites deux ok yàlla daa dogal ñun dañoo teel a bëre. Mhm. maanaam teel lu mbër di def def na ko nag foo xalaat bëre ji nañ fa. Mhm. tournoi Gora Sock ak tournoi Faran ak maam fépp fu mbër nekk dem na bëre fi maam suñ suñ xaaruñu indépendance kii quoi. ay indépendance pour ñu média jàll ñu dañoo dem bëri ci reyante ba suñu bëri suñu borom bëri xam ñu suñu biir mm-hmm. ñu doog a ñëw toog nii suñu keppaar nekk suñu dukk di entraîné di xaar nii ñagat nag bu ma koy jël ñëpp dañ leen moo mën waaye man xam naa ne maa ko mën fan nga tegoon loolu sama gëm-gëm ak li may daj ci coono man xëy di entraîné xamoon nga jël xamoon nga ko dama doon bëri géej roñ ñëpp mook maam Balla ba Pikine na leen kaa ñu bëri ñu bañ xaalu la gën a de am na sama interview bi ma seet ma ko dama doon dem géej man ba léegi damay dem géej di bëre maa toll si jàng bëri tollaguma comme ñoo di champion wu ñëwagul de damaa tool si jàng bëri damay dem Malibu. fekk gars yi def ngan di cercle ma daan ñëpp dem ñibbi. dimanche bëre passé si mujj sama gars yi laa dal ñoo amoon nooyoo mbëru yi ma ne eh xaaral ma bëri waat damay bëri amuñu combat damay yee sama yaram bi su mee ko bëri ba sama xol sedd ma dem waaye ñagat boo gisee ma bëri ak moom ba pare suñu course Arouna Sall. Mm-hmm. ñu dégg ay consignes mu teg ñu si accès bu leer ñu bëre. ndax li ma préparé woon pour ñagas ndax damaa dem asfa jàng xeex ba ba taxaw pour man moom xamoon naa ne fii bu suba ma dóor damaa préparé woon ren tam waaye sama genn grand àndaw Ndiaye Baye Fall bi taale maam Seera Fall bi àndaw di ma defal lu ne mun si ma lu ne mu ne ma kuu day yàq làmb mun nga bëre ma kër tëdd xam ne kii waxi nit la ma ma ne kii lu mu wax dëgg la mu mën nga bëre naq ko daan ko ma naq daan ko. mais lan moo tax nga choisir ne. Euh, kii fu ma bëreeg moom faw mën a coppe tànk bi. non choisir choisir moom loolu lañuy wax boo nekk bërikat boo nekkee si biir bëre. Hmm. bu dee da ngay contact ak champion yu ne. nekk mbër mu xam ne pied bu ñu teg bii jaaxul ak bee jaaxul la bu làmb yi commencé léewtoo rek da ngay xam faay yu bëri yi ak doxtu bëri fu bëree toll. ndax damay dóor di ma heurteur bu ma dóoree gos tëpp damay xool mooy yuutu léegi foo ma arrière xëtt ko ba mu ñëw. Hmm. def lecture de bëri bi. booy xool deuxième coup bi daa dóor ma taxaw sasa ko normal tag waaxu arnaat ko mel koy bëgg a xeex ak moom damaa miima góos dama koy dóor ma xëcc ma jël tànk bi léegi moom mbaru tànk la day damay njiin waaye du xaar njiin bi dama ne coppet tànk ba mu ma yàlla xaar tànk bi léegi day nekk day nekk deux du jàpp sama ginnaaw jéem bi si ginnaaw te damay daw léegi damay dox damay dox di wàcc sama loxo damay mbëkk day mais nga daan ko jëlu bu rëy. waaye tamit yéen ngeen commentaire su am doole ah. waaw yéen li ngeen décortiquer làmb ji moom. ak kees kàddu yi am solo yi ngeen si wax bay bay la. loolu loolu daa garaaw loolu ba léegi nii loolu laa def sama conseil téye ko nii su ma naree xaar xalaat dara rek boo leen seen wax jooju damay motiver mbër mu ndaw su bëggee nekk champion lépp lu mbër mu mag def da koy dañ ngir coono. Mm-hmm. su ma naree de benn faay damay xalaataat loolu rek. gàddu ko waaye su demee ba nekk mbër lépp lu koy yàq lu nekk. moo koy def. léegi nag loolu yëpp dañ koy fay instant bi nag lu ñuy yàq dañ koy moytu. di sant nag maître Dan affaire dafa dëgër de xëy ñu defuñu dara entraînement la ñuy def lépp lu si war si ñun moo koy def. des fois nga jóge entraînement sax ñëw ndekki. xaw a dëgg wala a gën a métti yow nga dem saal ba dee reeree téeméer fii yaa ngi dee dara jotu leen de dañuy buddi ay weñ ba dee ñu reeree téeméer rus nañoo ñaani ji. boo amul ku lay jàppale xam si situation day métti ñun dañoo war a dimbal de yi mbëri mag ñu ñu leen gën a daj coono. ku si entraîné sa combat de deux mois. waaw ah, loolu de am na moom. sa combat moo def ñun nag xaaruñu deux mois xaaruñu trois mois chaque jour dañuy muus muusi dañuy entraîné ba boo ñu gisee xam ne ñii dañ ñoo yërëm billaay wallaay. bu nu amul ñu siy jàpp ku si mel ni maître dan seetaanu ma benn yoon en saat la ma jël di si jàpp. mais mais mais mais bi nga bëreeg léegi. sama grand pa fay sa état jàpp si bu baax a baax lu si war instant bii def na ko manqué dara maa ngi sant Babacar ñooñu noonu. bu ñu ci newul boo màggeetul dara nag jàmbat gi mën naa. wuy ma <laughs> boo ma ne màggeetul dara ñoo ngi lay gestu mën nañoo nekk seen ruq lu leen lu ñu yor duñ ci dimbali kenn waaye yàlla yogoon na ñoom lu ñu yor ñoo ngi la ci compal ak tuut ñàkk jàmbur bu waaye lekkee saafara da nga kaa war a sant suñu borom bu mm-hmm. baax ndax xam na lu si sonn ak li si coono kon bu la mayee saafara jor na nga koy sant di ko gërëm. li ñuy li li ñuy wax naan merci yow mën a tubaab waaye tubaab boo defalul dara doo ko dégg euh, defe naa ne xam nga aada booy bawal aada booy bool xam naa ko xam naa ko grand champion bu bëgg a bëreeg man la nag. moom moo bëgg a bëreeg yow. waaw. aada <laughs> aada dégg nga dégg nga sa waay dégg nga dégg de. waaw lu mu wax caatu waalo mbër la. amaana sax musuma toog nañ ma jox caatu waalo. mais dafa fekk ni Saliou ba mooy sama manager. Mhm. moo idaal dañoo musa woo bi mu bëreeg ñagas ba pare. Mhm. ni ma ndax bëgg nga caatu waalo. mais su ma nee bañ naa caatu waalo fan laa ko teg. fenn. <laughs> laa ko teg mhm. rawuma ko. jëkkuma koo bëre. mais dama naa leen bëgg naa ko su waree taxaw. taxaw su bi ñu lay wax bi bëgg nga ko est ce que yaakaaruñu woon ne di nga ko ñeme wala nga ragal ko tax ñuy wax. non non man du question la ragal wala ñeme moom xam dinaa la xamal lu bëriwul rek mhm. <laughs> koo gis muy waajor séram di compétir di dem ba Foundiougne di dem ba Diofior di dem ba Djilass xamul ba xam dañ koy daan wala day daanu xamul ba xam mooy jël làmb du ko jël yàlla mooy suturaal ak lu mu ñaanlu kooku moom munul ragal benn combat ku waa pour man bu dee dëgg la ci compteur bi dëgg la ci moom munul ragal benn combat parce que loolu moo gën a métti. mais biñ la woowee ba xam bëgg nga wax su man damay xam ne caatu waalo rawu ma ko su bëggee mooy choisir bëre ak man wala mu ne bëreewul ak man mais dama leen bëgg naa bëre ak moom loolu laa ko wax carrément mu koy dégg. après lu wax ñëwaat nañu wala. non après wax dëgg fa yàlla ma wax dëgg yàlla moom moom mbër mbër day am fans mbër de moom sama fans la. ah <laughs> sa fans la. <laughs> waaw waaw ah damaa sool yow maa rek fu ne nag. dafay dox ba yàgg sax mën a mën mu ne ko saa bi li muy def sama kanam. waaye yow ñëwul ñu bëree. dañoo war a bëre maag yow mu ne ko ah bu jotee yomb rek yow yow bu yow bu la aada nee ñëwul a wax dese wul man ci yow lay dese. wuyu ma déggu li ma a a bàyyi maire bi di dang dangi ban toll ñu toll ñun nii nii nii. maire bi man sama réew si xam nga la la xam ni dañuy man sama yaay bu dëkkee si kaw na ma xale lu ñuy def suuf yàlla su ma reyee rek sama mission si àdduna mat na man li ma bëgg sama àdduna jafewul muy sëpp naan la naka man loolu bu ma amee man li ci des garaawut man sama réew ku nekk sa réew àdduna li nga bëgg ndax damaa xool mu daj ay coono te ma teg sama bët bii mhm. te mu mérito loolu nag mhm. nit ñi nag boo bëggee dégg-dëgg dama maye sens de damaa war a sangu si sens mhm. sens moom fu ne nii da nga cee taxaw dama war a sangu si sens du ma maye sens porte ndox yeeg sooy dug jàpp xëboo dama say sonn ndax gars jàpp bu baax a baax <laughs> waaw ku si mel ni Sam nag di Ginda Mamor Babou eh, Lamine Babou. Eh, eh, bàyyi ñooñu sërëxal gi sërëxal gi la mënul ñàkk bàyyi ma koy jàllale. waaw ati boobu ku si mel ni Sam Ginda Dio Mamor Babou Lamine Babou grand Yoro si sa France. gara Pablo ñooñu ñëpp dañ ciy jàpp Lamine Bari sa Morok. Dame Espagne Serigne Gueye Mouride Sade Ibra Sade ñooñu mënuñu see ñàkk quoi foo ma sërëxal leen ñoom Omar yaay gars yi daal. mais fi mu toll nii ñoom Pati ñoom Pape Sow ñoom. Baye Dame gars yi ñu woon jox la avance aar booy la wax naka ngay def parce que defe naa ne yow ak moom combat bu neex la ndax bu jos di wër nga wër ñëw wër bëgg aar loolu làmb du ko dàq. non kii sama làmb moom li ma waxoon promoteur moom wooyee làmb ji moom su ma doon bëree moom cinquante cinquante la kenn dëppoo loo xam cinquante cinquante la. ah day entraîné day compétir mooy compétir ku ne la yaa ko mën ki ngay ànd daaw la neex rek. waa lan moo tax booba ak léegi combat bi ñu koy dox gul taxaw. c'est que nag man dama doon proposé ñu ko xaw a raw si làmb. Hmm. mooy problème bi. mais est-ce que ñooñu nangu woon nañu ko nii nii ñoo ngi dox sama combat may ñaan yàlla mu sotti nii nii nii nii ñoo ngi dox sama combat may ñaan yàlla mu sotti nii nii may wax nii waaye moom. dañ koy ñaanal jàmm champion la nag ku ko bañal champion la da soxoona champion di ko ñaanal maam keree si làmb dóor am ko si làmb simple bi lépp. mais mais mais mais ci bokk na ci bokk ci moment bi. bokk si moom. bokk ci waaw. mais bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu dugaloon lii promoteur bi xam ne lii combat bu jaarul bu neex la mu indi la aada booy baax looy wax. fu mu làmb ji dañoo bëgg a boole ñu ko si boole leen ñiy jënd ay bolok ñu xoolal leen ñu nooy ñun baal ñu xëj si ñu jënd bolok daan leen ndax ñu am keree nañ ñi ñëpp nee nag caatu waalo nag caatu waalo bu ma la woowee ba fii nga ñëw fii bëgg a jënd glace damay xaw a jaaxal. ku xam caatu waalo man du ma jëndal glace mbër. waaw non mais naka laa andile aada ba ba mu. déggoo li ma la wax. nga bëgg fi nekk naa da ngay wër lu nooy. lan laay wër lu nooy man ñu ah, fayal ma saal bu. ñu fi jëndal bloc. man ñu fayal man gën a seer si Pikine may entraîné Batora. samay course dama teg lu. kii tamit saal bu seer lay entraîné ñoom dama teg lu métti. ñoom ma ne ma ne aada ba ba. may ragal seer lay entraîné xool ko bu baax. bu ma neree ragal bu ma naree ragal damay bàyyi te bay sax laa met su ma naree ragal benn yoon damay sàcc ñu tëj ma kaso ma jël conseil noppalu xaaral loolu ragal man dinaa ragal sama morom. mais man naka laa la fi mu dama la woo teg fi aada ba bul bul bul bul bul delloo avance taxawagul non defal ndànk parce que fii nii wasaare la. xam man du ma mën a nëbb dans public. Njaay Tine ku seppi njaaytin di nga ragal aada booy bool ma joxe sama accord bu yàgg mais mais ñoom ñëpp ay ay yéen yéen ñëpp fi mu toll nii aada booy bool sax moo gën a sedd sama aada booy bool mën na ne noo kii du dóore damee ñëw mbapat ak moom yooru kee day dóor bu dóor fu ne kon ku ñemee jël avance googu koy doo bàyyi aada sama kàddu ah, ah. non laamu daal lu ma si mën a xam mooy <laughs> combat bu ne rek ak nu muy jeexe chaque jour dégg ma combat bu nekk ak nu muy jeexe parce que njaaytin moomu noonu yaakaar naa man yàgg combat <laughs> kon caatuwaal bu ñu ko waxee njaatin wax ma njaatin kon xam nga ne ba tey benn circuit la. non benn la kay laa la wax. loolu noonu sax yaa ngi comprendre ku ko jëloon def ko galaa galaa galaa. xam nga bëre moom. combat bu nekk rek ak bu ñëwee. xamal lu ma bëgg ñu boole ñun bëri fere yëpp. Mm-hmm. man ragalu ma léegi déglu ma. ñun mbëri fere yi. léegi yow waa léegi déglu ma buñ la dugalee. dugal njaatin dugal kii. waaw dooleel ma ci keneen. ko koo ci baax na pere na tournoi dañoo war a bëri tournoi loolu mooy génn mbër. daam seen. loolu mooy sonkoro nga sa ginnaaw male waaye yow loolu day mel ni mbaxalu banaana. mbaa foo dëgg tarxiis. foo dëgg tarxiis loolu ko amul jom dëgg da ngay toog xaar na le. lamb jooju ay lamb jànq yi woo koo nga fi wax. fi mu toll nii fi mu toll nii Ada Boy Baol nee na njaayiti nag moom yëpp benn la. ndax proposé nañ ko ko proposé la ko. xam naa ne moom moo ëpp promoteur na rek di ay promoteur ñëpp suñ biir non man moom cadre làmb mu aw ay promoteur wax dëgg fa yàlla dañ may tëggal combat ma bëre yaakaar naa 2016 laa commencé bëre arène góor soog jokel ci laa jëkk a bëre boobu tey bëre naa huit combat xëy na sax su ma woon promoteur sama sama làmb mën na gën a gën a yokk noonu waaw combat yi mën na gën a gaaw noonu mais yàlla dafa dogal ni tey man caatuwaalo su amee combat ah garaawul nañ xaar benn adversaire non mais nag mais nag xam naa ne man daal koy déggee nii mu koy waxee. Hmm. dafa mel ni daal xaw ma dalaa xaw a ragal wala da lay sous-estimer. wala daal man nekk rek xam nga nit ku nekk rek mooy xool lu ko arrangé parce que man tey du ma diw dafa maa ragal. mais est-ce que fii fii a kii fee moo gën a nooy. non Ndiaye Tine mbër la fii dara nooyul ci làmb gis nga làmb làmb Ouzin xam nga la moo fiy nooy. Mhm. mooy li ngay pare rek gis nga li ngay pare xam ko mais li nit kii pare bu ko xam te làmb kun la maa ko xam rek xamu ko parce que chaque jour ak nu làmb yi jeexe chaque ak nu làmb yi demee mhm. tey man duma ma benn mbër naan kaa ñu bëre xam nga loolu doon ma singali mbër maa ngi def sama carrière ci làmb maa ngi bëre ñëpp di ma xam chaque dimanche ak samedi may bëre sama carrière di gën a yokk nit ñi di ma gën a xam chaque samedi wala dimanche ma daan mbër moo xamante ne champion d'Afrique la mhm. wala mu ngi bëre ay millions ci làmb te mu leer na mënu maa bëre moom arène ma koy daan far force mhm. xam nga kon kooku moom man du ma bàyyi xel mbëru arène man du loolu dama koy wax fii du ma xool kenn la may ma chance parce que lu may bëre ñoom bëre wuñ ko. Mhm. wax dëgg fa yàlla du ma xool mbër ni ko may ma chance parce que damay bëre di dem ay drapeau chef de ñu may yóbbu fu nekk kon tey làmb moom. bëre la mais fi mu toll nii su nekkul caatu waalo. à mhm. part caatu ñan ak ñan ñoo fi nekk. sa su nekkul caatu waalo nañ ma jox booy say de wala laay gote bu Cees loolu kay doy na doy na ay wax xanaa. mi fi booy bàyyi. laay gote mi fi ñëw ñëw Dakar tas ko. dem toog di xaar keneen kuy ñëwaat. laay bu ñëwee jooy bar ñi. bàyyi li nga wax. Boy Seye mi ngay wax dañ ko fi bàyyi su ñëwee. Boy moom booy dañ ko fi bàyyi kenn nangu koo jël booba ak léegi mënul am combat. <laughs> barki mu Mohamed benn combat rek amul ku ma ciy ragal bu ma joxee Balla Gaye 2 ma jël benn combat wax benn. yow waxoo ma ay tournoi sax ngay xaw a tidd benn nga ma wax benn. yaa say mbokk fu ngeen waaj ngeen xam jëm nga dem entraîner ji nga xam ni bëre du fo ndax foo mu am jooy du fo. Mhm. daanu du jooy kon loolu nekkatul foo kase. Cheikh Tidiane dee ci doy boo ko daanee mu mhm. jooy bu la daanee jooy. <laughs> noonu la demee Thiatou Walo budul Boy Baol ak ak ak ak euh, bëgg naa nag dem ba kees fekk fa ambulance moom may ko chance ñu bëre biir kees maa moom ma daan ko ñibbisi. gannaaw moom ñoom dañuy bëgg recevoir. waaw waaw dem gars yi nangu ñoo dem yow. pare boo gisee nag ma bëgg ma bëgg koo fekk ba kees daa muus daanu foofu. te man nangu naa jël samay bonne volonté bu fekk ko ba kees ba rek moom daan ko ñibbisi. ambulance meen. ah ambulance meen bu laay waxal nii man caat bu waalo. ambulance utal sa promoteur Sidi Diakhaté pere naa ba fekk la ba biir kees ñu bëre ma daal la ñibbisi. loolu de xanaa leer na. aada euh, ba amoon kàddu yu mujj nga tàggatoo lan lay doon. waa di sant yàlla rek. Hmm. sant yàlla bu baax. bi nu yàlla defalee ñoom tal ak fekke xam nga di leen nuyuwaat yéen ñëpp nuyu caatuwaal di ñaan kenn ku ne rek li gën ci yow ñun ñu fi toog yàlla loxo yàlla defal muy man muy moom parce que man aw ma xaar ma yàlla mbër ma dasel dama lay nuyu bu làmb ñëwee nag cadre làmb la man aw ma problème yooyu di sant yàlla nag di sant waa parcel ak waa Cambérène yëpp di sant Mbawar Mbawar di sant Bawol Bawol di sant waa Nord Foire croisement Cambérène Kër Massar Karéeru Gouga ñëpp di sant Fallou bi ma àndal sant aada Jokal bu baax aada Jokal daf may jàppale sant Modou Bey patron bu baax di sant Baylaat mu ndaw sama xarit sant Moussa Ñuule sëñ Omar Tafa Diop Daawa Bey Mbay Njugatin ñoom ñëpp maa leen sant di leen gërëm di gërëm njaxat Bey bu baax a baax di gërëm maam Góor Caat di gërëm waa Interdis xam nga waa Daaru Xafoor waa Arma Mbay waa Gétt ga waa Xeer wa ma kenn mafia bi yëpp maa leen ziar leen màggal. di gërëm Kanté borom Italie nag sama doomu nday nga xamante ni yaakaar naa ni moo tax nam ma sax iPhone <laughs> iPhone bu yàqu mu yónnee ma beneen kooku noonu aw ma fayam di sant ñëpp nag di sant yàlla bu baax a baax a baax moom la ñu may tal ak fekke lu suñu wërsëg lu ne rek yàlla nañ ci jot lu suñu wërsëg yàlla buñ ko gis yàlla na yàlla dolli jàmm ci réew mi. defal ko mboolem jullit ak kuréel jullit yaa xam loo bëgg kenn ku nekk rek yàlla na la ko yàlla defal maa ngi sant ñëpp ñëpp ñëpp. di sant maacu nag sama mayga bi may jox ndékki nga xam ne mayga bi moom nee na ma <laughs> mbër yow doo fay ndékki <laughs> lu ma neex laay kooku noonu dama koy sant ba sant ma xamaan ma maxamaan sama xarit la wax dëgg fa yàlla nit ku baax chaque jour ñu maa ngi koy gërëm di ko di sant ñëpp nag yee gis nga Caatu Waalo kàddu yu mujj yi waaw maa ngi sant ñëpp di gërëm sama gars yi njaga as jóg ma àndal di ko ñaanal suñu borom guddal fanam ndongo taalibe Sëriñ Abdou Karim Modou bu Caat bu Waalo di ñuy ñëpp sama mboboot bi nag dama leen eh, tëgg naa benn mboboot sama koñ dimanche bëgg naa ngeen ñëw ah. bëgg ngeen ñëw mboboot bu neex la dama koo tëgg. dinañ ci ñëw bu neex la loo tëgg mbër. mais nag defal ndànk mboboot boobu. mboboot boobu lu tëkkee laa koy laaj mboboot boobu maa ngi gis maa ngi gis. lan la teg <laughs> non. waaye saa ma wax tegal lu baax. ma ñëw laa la wax jéem a. waaye parce waaw mais gaan maa ngi sant sama mère yaada nag maa ngi sant yaada bu baax a bi a ay drapeau jàll police ay maître ay ñoom doy job bambara seen drapeau ay ñoom bamba ñoo ñoo làmb la maa bëgg ngeen ñëw boo gisee boo gisee làmb am nga ci adversaire ay ah, non bi damaa bañ ma am coow moo tax ay goro suukar ay saaku ceeb ay yooyu laa tegal booy waaw xam naa lu si làmb dafa metti saako ceeb moom ko yóbbu sa kër yaa ngi commencé marqué paas yi booy bi jàng bëri waaw mais maa ngi gërëm ñëpp ku si mel ni maître dam dama ko fàtte mukk maître kan da ciy jàpp saar wa baat nan sama yaay dama koy ñaanal suñu borom guddal fanam samay mag ñoom Malick ñoom Pati ñoom Joo ñoom Pafay ñoom Lamine Baabu ñoom Baye Dieye maa ngi nuyu Baye sama gorom moo ma jël en charge na ma dëkkal fii sama kër gi nii entraîné lekk ba surte de nelaw kon loolu dama ko ci sant bu baax acte bu mu def mënoon na maa bàyyi suñu kër may burux loo xar-xar waaye damaa ne tëddal fii loose loose baax kon maa ngi ko ciy ñaanal suñu borom yokk ay xéwalam di nuyu ñëpp nag suma ma limee damay juum Fouta maa ngi koy nuyu monsieur le maire Baye di baax àndaw maa ngi koy gërëm da ciy jàpp saayaran wa baati nan maa ngi koy gërëm baax grand pa fay sa Italie Dame Espagne Lamine Baye Fall Serigne Gueye Mouride Sadikh ñooñu dañ ciy jàpp Ibrahima Sadi Tafa Lay Syndicat Papa Ndiaye jo Mamor Ba maam ñun dañ ciy jàpp surtout Lay Syndicat da ciy jàpp bu baax a baax Papa Ndiaye di seen alal di ko jox kon ñooñu du leen fàtte gërëm waa Gunaas gépp waa Gunaas gépp su ma nag damay jum ku si déggul nga am ne nit moom waaw waaw ñu lu fi dëng nag ñu la lu fi jub suñu gis ngeen mbokk yi ni lay demee ci loo ma dalaloon ki nga xamante ni mooy Ada Boy Baol dalal ki nga xamante ni mooy caatuwaalo ñu waxtaanee ko ndax làmb lépp dañ koy négo dañ koy négocier wala boog dañ koy lijjanti ba tax na tey euh, ñi laa fi dalaloon di leen jaajëfal bu baax a baax waaw Moodu Mbacke baax yaay Couture hmm. damaa jox tisi bu baax si tabaski gi na ma tabaskee ko boobu ba léegi nag loolu jàll te Moodu Mbacke màggal gi dee waaye ñëw nii te ñun amuñu lu dul Touba bu ñu dundee dem Touba bu ñu dee ñëw buñ kon boog lépp mën na lépp teg naa ko sa nag Modou Mbacke baax yaay Coutir doom day liiru jaaj waaw ate ñëwal ñëwal maa ngi jégalu bu baax dama am sama benn booy bu may gërëm rek Matar Diop mhm. nga xamante ni daf may jàppale chaque jour chaque jour loolu la may defal te yaakaar naa ku nekk rek lu mu defal bu gor ñi teewee na nga ko wax barke Seydouna Mohamed daf maa jàppale billaahi walla ci lu bari Matar Diop xam nga maa ngi koy gërëm bu baax ak yaay mère aadama Dieng di ko sant di ko gërëm di ko Matar loo dund doyul sama xarit nga sama doom nda maa lay gërëm di gërëm Pape Faye bu baax a baax a baax di leen ziyaaraat di gërëm sama yaay yàdd nag moom mi nga xamante ne lépp moom ma koy defal namu ma dara ndax sama yaay barke sëñ Fallou Mbacke bëggul dara dara dara lu ma met émission sax su ma amee da yëkkati xaalis jox ma kon kooku noonu yal na dund ba ma ko yóbbu màkka man sama moyen loolu laay ñaan ak bépp yaay mhm. gis ngeen kontaan naa ci yéen gërëm maa leen ma nag waa mafia kara Tiwaan Pël gi dimbali ñu ngir yàlla rek Tiwaan Pël yow ku ñu yóbbu deux ans si otom duñ jënd gasoil waa mafia kara a suñu sëfoor ñu ngi koy nuyu Alioune Seye 2 la de Lirou Diagne grand Abdou juuf ñooñ mun mën mënuñu leen fàtte Arouna Sall suñ coach Souleymane Ba as nag amuñu fayam ñu ngi koy gërëm bu baax di ko ñu woon su ñaan guddal fanam gis ngeen ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax man tamit faw ma gërëm ndax mënut a ñàkk maa ngi gërëm ñëpp ndax euh, sama anniversaire bi ñu ci jàpp dafa bari kontaan naa ci ñëpp mënuma ma dugal ñëpp esat yi waaye su ma toogee fii mën naa gërëm ñëpp di leen wax ne xam naa yéene yi gis naa li ngeen daj ci man kontaan naa ci yéen bu baax a baax a baax a baax ndax saa bu saa bu dundee ba bis bu mu juddu woon dellu siwaat rek dafa santaat yàlla bu baax a baax maa ngi sant yàlla bu baax a baax mhm. di gërëm ñi si jàpp ñëpp nag ñëpp ñëpp ñëpp duma lim kenn ñëpp di nuyu Sokista bu baax a baax a baax moom sama xarit la ba am salon bu bees bi yéen ñëpp nag dinaa fa yóbbu ngeen def pédicure manicure moo ngi nekk fee sa Cambérène 2 euh, ca rond point pune ya di ko wax ne na góorgóorlu bu baax a baax ndax xale bu nekkee ci yoon suy góorgóorlu rek dañ ko wax waaw góor di gërëm ñëpp di jox dig daje ci jàmmaarloo ngeen jëf